c'est que le président du Sénégal sera marié ou le deuxième wala il aura obtenu treize treize députés ou cent vingt élus locaux les Idriss Seck les Tanor Dieng ça a été grosse surprise le jeune Macky Sall dimanche parce que l'image elle la de personnes des femmes des jeunes des vieux vous tournez c'est pas pour pour tourner rapidement ça chez lui à Kaffrine si vous avez les images je continue ça c'est à Koungheul donc ça c'est Koungheul les les voilà ça tourne rapidement recommence quoi recommence accueilli partout aucun, aucun autre candidat Il y a des candidats qui faisaient de la pub, qui se disaient gazés par les fausses sonorisations pour perturber la tranquillité de la localité. Perturbe les villageois. La gendarmerie vient le libérer. Et demain, le lendemain, dans la presse, oui, tel candidat a été Mais moi, vous n'avez jamais entendu part avec une seule voiture. Je pouvais amener une dizaine, une campagne mais en campagne de parrainage. La loi ne me permet pas d'occuper, la loi ne me permet pas d'occuper la voie publique. Moi seul, je vais voir si le peuple même, si le peuple de Diofior va s'il va être à l'entrée de la ville, il me dirige vers l'endroit tëdd fii la propre turpitude nous la rigueur on est en plein dans la loterie Craoson une élection loterie nationale une élection présidentielle loterie nationale on on va loi cest dire le de entre 6 0,6 et 0,8 pour cent vous déposez 44 000 500 vous avez 6 000 et quelques d'éléments qui ne sont pas connus en 21 doublons finalement 100 au lieu de 3 000 parce qu'on ne peut que remplacer le doublon et non les les éléments inconnus donc vous avez le droit on peut l'inventer pour vous second tour alors que je devais passer donc au mille doublons il vous reste trois mille cinq cents sur les huit mille cinq cents et je cherchais moins de quatre ku taxaw dama manqué la rek da ngay fen billaay lan laa manqué la fukki junne nit dañ ma laaj ma joxe juróom juróom fukki junni juróom fukki junni <laughs> juróom fukki junni on me demande quarante quatre mille j'en suis à soixante quatre mille tour zéro doublon interne doublon interne c'est sur les quarante quatre mille aucun doublon interne pour qui travaillaient en équipe nuit et jour. Les gens sont là, ils ne me laisseront pas mentir. Donc, doublon externe, 13 452. Il y a beaucoup de Total, des parrains, 3 505. On demandait 44 000. Doublon externe, et 7130, ça fait 20 parrainages. Je me retrouve avec 43 505 parrains validés. Insolite de participer à ces élections-là. Lorsqu'on a dit tirage au pour créer des doublons, il fallait mais tout le monde dama ko def mais doo ñëw ñaanal la pour m'escroquer personne ne va m'escroquer moi pourtant ñaanal nañ jiw de pourtant yu jiw et les candidats sont impuissants devant les doublons mais duñu ay jinne duñu ay malaaka ñu wax Ibaka mi la mi la pare na big diw ñëwee pare na ko ce qui est plus grave des gens sont restés chez eux ont des parrainages vous, vous faites le tour du pays. Si on fait le ces gens, s'ils ont de la chance, ils passent devant vous, vous qui avez fait le tour du pays, pour requérir les, les parrainages. N'essayez même pas de comprendre. Tout le monde subit. C'est comme si de rejeter, de dénoncer une élection loterie nationale. Tout le monde accepte. de dire que cette élection, une élection de fous, peut-être un peuple malade, incapable pour dire non, arrêtez ce cirque-là. Ce ne sera plus des, des, des loteries, des au sol. Hein, si quelqu'un passe, alors que c'est le dernier à avoir peut-être le parrainage, vous avez été le premier à l'obtenir sur le terrain, il passe de à montrer les mêmes parrainages, donc vous ne pouvez pas participer à ces élections. Mais c'est idiot ah, On va voir quels sont les candidats qui vont passer aujourd'hui. Comme moi, Diallo, Diallo, Diallo. Personne. Retenu n'a plus de mérite que les candidats recalés. Il doit même avoir honte de la République. les autres là qui sont recalés, ils doublons et nous ne serions pas là en de compétir. li may wax dañu am xam-xam pour xam mel ni ñu ngi mel ne un peuple na recalé recalé wu kenn kenn jàll amul ñëpp di pat naan nañ dem. ne sunu représentant yi ñu ñu naa ngi dem di xool ñan ñooy jàll ak ñu par exemple Amadou Ba Karim Meïssa Wade prenez Habib Sy ne pas être candidat parce que a les mêmes parrainages que les autres très très éloigné de Amadou Ba s'il a les mêmes parrainages que El Hadji Diouf qui est de serait éliminé osez aller vers le parrainage citoyen parce que bii dafa neex parce que au dialogue de sont entendu pour dire que si vous avez treize députés vous c'est un risque et vous venez ah jàmbaar yow kenn am na li nga xam ne bokkatuloo au sol malgré la recherche de quarante quatre mille trois cents dans le pays ce qui à déposer vous déposez tout ça on vous dit quelque part yaag diw yéen a nuróole loolu mooy loolu mooy kon gàcce ngaalaama liñ mën laa yëpp def naa barke alxuraan ba sonn bokk nga yaag Lamine Ndiaye am na yu ngeen nuróole waaw lu ma ci mën mu ngi mel ni on fait le parce que ce que l'on ce que l'on par exemple par rapport à un problème posé la réponse est bonne la bonne réponse donc il passe il obtient le bac toi tu as la bonne réponse mais comme tu viens après Mourou Dieng toi Ibrahima Ndiaye te yéen moo ko mën nangu yéen Sénégalais yi yéen ma jëriñ ñëpp noonu la ñu recalé dañ la laaj ci examen bi am nga ko ba ëppal ko ñu yow trouvé nga lañ la laaj mais am na ku la jiitu trouvé na ko kon moom mooy jaar mais gars yi ka leen dof ñëpp nekk dof réew mi yëpp dof kenn du xool yëpp dof yooyu ñuy def on a perdu la raison subitement on nous a marabouté. on me comme si ce que je dis là. était extraordinaire. C'est tellement simple à comprendre pourtant. Vous vous demandez, vous pas le <laughs> mais yéen bu ngeen yéen xalaat ngeen affaire bi ma leen di wax li ma la laaj am nga ko nga war a am diplôme bi ñu ne non ki ñu ko amaa yow trouvé na kon yow doo jàll. dara loolu koo mën nangu yëfu dof nañ ko mën a nangoo yëfu dof nañ ko mën a nangoo yëfu dof nañ ko mën a nangoo moo dof ñeneen dof ñu ànd nangu yëfu dof waru woon bokk ci élection yi li mu demee kenn jur war sax na bokk ci élection yi élection dof ku ci bokk da nekk dof looy fait conséquent fekkoon dañoo dem wóor amu ci dara ñu ne ah vraiment ñun daal nekkee ñun Sénégalais bëgguñu ñu nekkee ñun ministre am ñu laaj ñun daal bu yeboo demee wëri amuloo doo boo wëree am ba am que war ngaa toog gars ñu laaj ñeent fukki junni ak ñeent te du juróom fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk cinquante cinq mille cinq cent soixante dix dina la huit mille cinq cent doublon huit mille bi muy bàyyi la rek parce quarante mille la ñu laaj ci premier tour yi ku ci am quarante huit mille da jàll nañ ñu ne ñu six mille yi fii identi doon identifié sur le fichier électoral xam nga lii ay caaxaan la loolu laa bëggoon mu leer ci bopp sénégalais yi bala ñuy wër di wax am ñu fi nekk di fenn ak di yàq der tudduma seen morom billaahi ñii ñuy cité gouvernement assemblée nationale l'homme du trois join li ma liggéey ci réew mi man dama am jaajaar yeewuma rek am ay milliards rek ni eh ay baadoo la fi nekk dama luñ lekk il ma président xeeb naa naa leen maa leen gën ku yeewu am milliards léegi maa leen gën quoi yéen daal ay xar ngeen ay ginaar ngeen ma leen moom mais loolu mënu nekk de wala yeewu ni président moo la tànn wala keneen yow yaa ci yaa gën ci réew mi yow loo fi def loo wone lépp lycée université assemblée nationale gouvernement sur le terrain yaay kat président day am jaar-jaar njiitum réew day wane boppam avant muy laaj réew